Lamine Fall ñu ngi lay nuyu. waaw ñu ngi lay fay soxna si. ngay secretaire général adjoint CNTS confédération nationale des travailleurs du Sénégal. Euh, waaw laaj bu njëkk bi tey président Macky Sall euh, jox na leen ngay kii di Bassirou Diomaye Faye waaye def na fukki at ak ñaar ci bopp Sénégal euh, yéen nga yow nga jiite ngay secrétaire général adjoint CNTS ci douze ans yooyu loolu côté liggéey ak seen syndicat yi loo ñu ci mun a wax. ban bilan nga ci mën a tiire waaw li ci mën a wax de xam naa mën nañu wax ne bari na ndax itam fukki at ak ñaar président Macky Sall yore na ko réew mi bala may jàll nag ma bëggoon féliciter monsieur Bassirou Diomaye de son élection ñaan ko yàllal ko yàlla mu réussir mission bi jëmbul waaye jàpp nañu ne en tout cas li ñuy déglu li ñuy dégtal li ñuy dégg ci moom ak ñi am nañ ci yaakaar alors pour revenir ci sa question bi président Macky Sall c'est vrai def na ay jéego jéego ci suñu digganteeg liggéeykat yi nag il faut dire que gestion bi am nañ ci ñaari salaire yoo xam ne bi ñaari augmentation généralisée de salaire dans le secteur privé dans le secteur public aussi def na ci ay jéego yokk na solde yi malgré que am na coow ndax dafa am ñuy tànn béer jox ñi bàyyi loolu nekk na jafe-jafe boo xam ne ba léegi ñu ngi ciy wax d'ailleurs euh, beneen bi mooy aussi euh, euh, secteur public bi secteur privé bi def nañ def nañ ci ay jéego yoo xam ne secteur privé bi ñoom ñoo ko ñoom ñoo ko def mais moo leen accompagner am nañu aussi ay textes yu bari yoo xam ne bi ak l'apport ministère du travail réforme nañu ko dont la convention collective nationale interprofessionnelle bi nga xam ne bi mille neuf cent quatre-vingt-deux la woon réformé nañ ko yokk nañu salaire yi même juillet deux mille vingt trois ci biir secteur privé mais xam nga réew mi ni mu bindoo tey ji ci jafe-jafe même boo yokkee salaire yi aussi amul amul njëriñ bon parce que effectivement d'ailleurs liggéeykat yi ñi ëpp si réew mi duñu ay liggéeykat salarié deuxièmement dund bi dafa cher alors yooyu it kon bu fekkee def na ay jéego aussi vraiment jafe-jafe yi mi ngi fi. Mm-hmm. dafay mi ngi fi te itam euh, yu métti la yu tar la ndax boo gisee élection bi ni mu demee nga xam ne euh, référendum la woon parce que nag dañu waroon continuer continuer li fi ne wala dañuy sa dañuy soppi yi loolu lañu wax soppi lañu wax particulièrement xale yi donc mag ñi sax dugg nañ ci pour dire que rek Euh, jafe-jafe yi ak ni ñu yoree réew mi ci arrogance ci aussi euh, loo xane ne bii dafa ñu koy waxee dafa teguwul ci yoon kumba am ndey ak kumba amul ndey o yooyu yëpp dafay impact nag ci réewu sénégalais yi boo tax tey ji ñu ñu ñu ñu wote ñu ëpp Sénégal yi en tout cas wote nañu wote nañu pour que changement bi am mais bon jàmbaar na nag sur d'autres plans sur les infrastructures mais ñun ñu daal mooy justice sociale mhm. équité waaw ah, nit ñi ñu yamale leen parce que boo xoolee service public bi entreprise yi nga xam ne bii ci service public lañu lañu la ñu defoon presque ñoom ñëpp la fa ne syndicat sax dundatu fa parce que rey na leen directeur yi fa bàyyi dama fa dugal ñoo ñoo leen ñoo leen liquider alors te loolu tegul ci yoon muy RTS muy Soleil muy euh, muy APS et cetera et cetera yëpp dañuy dem ba syndicat jëmutuñu yëngatu RTS nag moo ci gën a bon moo ci gën a garaaw ndax waa ji sax dafa muy créer syndicat mhm. wut secteur général am jox ko ko pour rek toroxal ñi fa nekkoon di tuddoo syndicat te loolu moom yëg na ko wax ji àgg na ci moom te jéemu ci dara yooyu nag bon vraiment itam nekk na loo xam ne bi lu métti sénégalais yi la métti sénégalais yi la donc wala un peu li ñu mën wax ci gestion Macky Sall bon maintenant yàlla def na jeex na ci jàmm ak salaam malgré soubresaut yi mujj am par rapport aux élections mais yàlla def na vingt quatre wata nañu mhm. wala nañu président bu bees moom am na war a dem mën a ji ko si yàlla jàppale ñu fal bu bees itam yàlla yàlla taawul ko tëñul ko ba mu am ndam mhm. pour réew mi toppeeku surtout dans l'équité dans la justice sociale et dans la transparence mhm. loolu mooy li nga xam ne bii ñun loolu la ñu Macky Sall woon te ànduñu ci voilà Hmm. Euh, bu dee bu dee revendication syndicale yi nag revendication yi moom ñi fi nekk euh, ñëpp ñu xam la dégg ngeen coow justice hmm. bon ñu ngi bëgg yàgg tey jii ñu ngi ci grève xaw ma ñaata at hmm. wala ñaata weer euh, dégg nga collectivité territoriale yi ñu ngi ci loo xam ne bi daanaka léegi mat ñaari at mhm. ñu ngi ci grève grève boo xam ne bi amuñu interlocuteur donc euh, voilà plus maintenant le secteur primaire li ma doon wax inéquité bi li nga xam ne bi moo xew moo leen dugal ci loolu secteur primaire bi nga xam bi dañu yokkal ñi bàyyi leen ñoom en rade te ñoom yëpp liggéeykatu état la ñu boo demee ci EPS la même sos à travers santé yi ñii ñu jox leen indemnité de logement ñii ñu ne am ah, bu ngeen ko am pourquoi te ñoo ñëpp ñu tudd liggéeykat nekk ci même structure bi parce que ñuy fonctionnaire lañ ñu duñ fonctionnaire voilà yooyu dañ ko war a régler ah plus maintenant d' autres yo yoo xam ne bi nag c'est le droit syndical boo xam ne itam nit ñi nanguwuñu ñu respecté ko te loolu ministère du travail bi di ñëw dañ ko interpellé mu taxaw ci képp ku yor kër liggéeyukaay ci Sénégal nest pas. Mm-hmm. voilà yooyu daal mooy yi nga xam bi ñoo gën a tar mi ngi ci taalu gouvernement bi ñoom xam nañ ko premier ministre bi recevoir nañu recevoir nañu avant koy wàcce d'ailleurs deux semaines avant ñu koy wàcce mais yooyu xam nañ ko ñoom nañ ko mm-hmm. donc voilà un peu revendication yi quoi mais lan nga jàpp ni moo bloqué revendication yenn yi surtout li ñuy jàpp sont incidence financière te eh, teguñu ko ci yoon parce que pourquoi ñu jox ñi bàyyi ñi bañ mënul jox ñëpp war ñoo jox ken alors donc mais xaalis la des des questions financières mm-hmm. ministre des finances am na ci yoo xam ne bii waxoon na ne d'ailleurs évalué nañ ko autour de huit milliards xaw ma mais ba léegi defuñu ko en tout cas moo tax te nguur gu bees gi dañ leen wax ne loolu moom mënuñu ko mënuñu ko parce que justice sociale aussi dafa war a am ci réew loolu mooy indi frustration bi ñu bi bi ñu dal di ba sénégalais yëpp voté contre voilà donc revendication yi daal li ci ëpp solo mooy loolu. Mmh. d'accord tey jii euh, collectivité territoriale ba ñuy xeex ba léegi kenn buy wuleen moom mu xëy xëy recevoir maire yi yokk seeni salaire ah adjoint maire yi yuuxu mu jafaat mais loolu kay loolu mooy sax euh, yéen faale wu ma leen bon mais euh, loolu moo tax ñu daal euh, na dem ak jàmm rek. Mhm. d'accord waaw jàmm daal ki di ñëw indi jàmm. Mhm. président Bassirou Diomaye Diakhar Faye prêté na serment mardi mhm. bile yéen yi loo leen di xaar ci nguuram bi. waaw li ñu xaar daal pour mu résumer ñetti poñ la justice sociale. équité transparence dans tous les domaines nag respect du droit du travail jeex na yooyu daal ñun la ñuy xaar moom parce que yooyu moo fi ñàkk waaw ah, yooyu moo fi ñàkk bu ba bu baax a baax a baax loolu moo waral réew mi yëpp mere Macky Sall nit ñi euh, vote bi référendum la ah waaw donc euh, li xew mooy nit ñi dañu mere dañu frustré mu ñu continuer ñu leen di traité comme nii bàyyi yeneen yeneen sénégalais yu tekkiwul dara d'ailleurs di brasser ay milliards bay sànni xaalis ci mbedd yi ñoo xam ne barki démb tekkiwuñ dara daan doon ñu ko ci seen maam doon ko ci seen baay ah jël alal réew mi di def lu neex en ce moment yi nga xam ne nag ñooy les braves travailleurs ñu bàyyi leen en rade ça je pense que régime bu bees bi daal li ma wax rek équité justice sociale transparence droit respect du droit du travail loolu daal bu ci taxawee ñu am bu baax waaw. Hmm. dund bu cher bi tamit. waaw mooy dund bu cher bi rek. xam nga hmm. bu mu waxee équité loolu ci la bokk te dund bu cher gi am na ñoo xam yëguñu ko parce que ñoom li ñu li ñu bu jeex loolu mooy équité ñu fexe ba réew mi sénégalais bu ne ak foo mën di dëkk. nga yëg ci sa bopp voilà hmm. loolu loolu mooy équité hmm. il a parlé de justice d'équité sociale hmm. d'équité territoriale d'accord c'est très bien mais équité sociale aussi nañ ko ci boole am na solo am na solo d'accord mooy dund gi mooy lépp d'accord euh, Lamine Fall euh, ñu ngi lay sant euh, di la gërëm waaw jërëjëf soxna si ci fàttali rek yaay secretaire général adjoint CNTS di confédération nationale des travailleurs du Sénégal